daleen ak jàmm ñu dellu si fii si marché centrale bu Tëngéej ginnaaw ndogal bi gouverneur jël dakkal lépp loo xam ne ay activité la ci marché yi nekk fii ci diwaan bu ndakaaru nga xam ne lépp dañ koo lal ngir xeex lii di jàngoro bii di covid 19 ñu ñëw fii nag ci marché centrale bu Tëngéej xool nan la ka jaaykat yi dundee ginnaaw ndogal boobu mu wàccee ak ndax mesure yooyu ñu ngi koy ñu ngi koy wëyal fii ci marché central bu Tëngéej ndax tamit askan wi mu ngi bàyyi xel bu baax lii di feebar bi di covid 19 léegi-léegi ñu dugg ci biir marché bi xool lan moo fay xew Euh, askan wi la dundee li ni mel. boo duggee ci biir marché bi nag li ngay njëkk seetlu mooy ay nit yu dajaloo ci yenn xàll yi nekk fii ci marché bi ginnaaw ba ñu tëjee yenn bërëb yi ñuy jaayee ay tissus bërëbu ñawukaay yi ak bërëb yi ñuy jaayee lii di produit cosmétique. y a beaucoup de changement parce que gis naa ne boutique yi yi jaay kii. yére yeex ñi jaay cosmétique ñoom ñëpp dañoo tëj en plus comme marché bi tam ni ñu ah, dalee si mbedd bi nii trottoir yi gis naa ne xaw na wàññeeku daal mais su ma sañoon sax ñu gën ko yokk parce que lii nii sa normal même lu lu bon bon bon ñii toog ñii ñëpp dañ leen parce que instant bii nii situation bu ñu nekk moo garaaw te ku nekk war nga xool se bopp jaa ngi dem jaa ngi dem si marché bi doo xam jàngoro bi ndax di nga ko fa daje elam déet te boo duggaatee tam yaa ngi rool sa njaboot kon ñun ñëpp war nañoo conscience situation bi ñu toll autorité tey dispositif yi ñu jël yëpp c'est pour notre bien kon war nañ leen si mun a jàppale waaw en tant que sénégalais daal loolu laa ñun daal dispositif suñ ko gënee mun a yokk sax moo gën nit ñi daal defe naa ne man dama yaakaar ne nit ñi ba léegi dañoo conscient situation bi fu mu toll parce que bu ñuy gën a dem cas communautaire yi di gën a yokku bi day gën a grave te ñu ngi nii dugg si weeru koor gi mooy loolu daal dëkk bi dina métti kon boog nit ñi war nañoo xalaat bu baax a baax affaire bi fu mu toll ku nekk jël ko comme si nii instant bi ku nekk da nga war da nga def ne comme si ne yow danga nga am cas Covid 19 bu ñu ko jëlee noonu rek defe naa ne situation bi dina dina dina xaw a tane tuuti. bi dafa métti trop dàqante yi métti na a ah, mais xëy na feebar moo tax gisoo marché bi comme nu mu daan feese ay temps feesewu ko comme nii gisoo daa yaraa waaw am na ay policiers yi fi nekk kay ñoo ngi dàq suba ba léegi ñoo ngi dàq gisoo suñu njaay dara doxu fi ah am na ñuy jàppaate moom am na ñuy jàppaate moom mais man moom mënu ma see sori moom. mooy bu ñu jàppee da ngay fay. waaw da fay moom da ngay fay fay moom. ñoom dañ ñu ne ku dul jaay lu ñuy lekk na ñëpp tëj kuy jaay lu ñuy lekk mën na xëy lal mais ñun ñun ñi jaay lu ñuy lekk sa ñun dañoo am problème mu lal parce que man fruits laay jaay te man jënd naa samay fruits ba tey mais man ooma fu ma koy lal dèjà sama banaan mu ngi commencé yàqu puwaar ñemewul coono commencé naa yàqu sama raisin bi ne la puusal ma jàll ñun nag ñun sonn nañ ba fa coono yem ñun lu ñu gën a bëgg bu dee Macky Sall day tëj ñii bàyyi ñii. nañu bàyyi ñun ñëpp ñu pëccaxoo mais bu fekkente ne day tëj ñii bàyyi ñii tamit loolu arrangé wu moom nañu dimbali bu fekkee confirmation moo gën si dëkk bi nañu ko defal ñun ñëpp ñu toog suñu kër mu xool ñi feebar yóbbu leen ñun ñi feebarul ngir yàlla mu bàyyi ñu ñun ñu liggéey parce que ñun dañu sonn fii bari na ñoo xam ne ñoo yore seen kër léegi yow magasin bi nga ne bul ubbi te man may jaay pom mu waroon jaay ba wàcc jënd si man 500 wala 1000 francs yóbbu këram mu joxe lu ñuy def dépense ñu ñëw xëy te kooku noonu mënatul lal léegi yow est-ce que borom dugub bi bu lalee moom dina jaay xam nga borom dugub bu lalee du mën a jaay nañu confirmer ñun ñu toog suñu biir kër yi ah ku am sombi nga togg sombi ku am ndox ngay naan ndox ba dans la trois semaines ñun ñu génnaat nekk si terrain bi liggéey mën a am jàmm ñëpp am jàmm ñun li nekk si marché bi ñun xamuñu lan la parce que ñun buñ ñu newoon yéen ñëpp dangeen di toog yow doo xëy di sonn di jël la nga jotoon a yor akas néew nga dem jëndee ji ka bagage mu leen na man lii ma yor moo ngi yàq mooy sa tey ji bu ñu la newoon toogal même bu ñu la joxulee dara sa ñaar dërëm boobu noonu di nga seet nooy organiser di si sombil say doom ba affaire bi jeex yow nga génnaat dem liggéey ji ñoom bañ ñëwee ñu ne kuy jaay lekk. yow na nga waaw parce que man lekk laay jaay dañ ne kuy jaay lekk si nga bokk léegi man ma fon nag banaan ak pomme si lekk la bokk te te te nag moom ah dégg naa nit ñi di wax tamit nee nañ xaw ma banaana day faj coronavirus ma jëndi banaana yu bari bëgg kaa jaay te mënut a na ci askan bi population bi tey gi jaayatuñu jëndatuñu lañ yoroon ma ngay dem lañu yoroon lekk nañ ko ba mu jeex te bis bu ñu defee confirmation totale ñi dëkkul fii nii day gën a metti ci ñoom ndax amuñu fi benn benn famille dul seen poos seen poos mooy seen famille. waaw waaw te néeg bi ni ñu koy bokkoo day gën a indi sax gën a law lawtal maanaam euh, feebar bi ni ñu koy waxante corona bi ni mu koy waxantee day gën a yokku contact bi day gën a yokku léegi nag président nag dañ koy ñaan mu may ñu deux jour mu ubbi yoon yi ñii ñibbi Touba dem Touba ñii ñibbi Kaolack dem Kaolack ñii ñibbi Ziguinchor ñibbi Ziguinchor comme ni mu defaloon élèves université yi jar na sax mu ay médecin ci garage yi mu ne temps rek garage ngeen ngeen duggee yéen ku bëgg a dem rek na dem duggee bon mari seul moom laa may docteur bu ñëw ku ñëw indi fa docteur yi ku ñëw ñu saytu la nga takk masque yor sa déodorant bu ñu la seetee amoo ko feebar bi nga dem ci jàmm. ak say mbokk bu dee am nga ko foofu sax dana gën a neex maanaam ñu fa am sax contact yi ñu mën leen a gën a jàpp yóbbu yóbbu leen waaye instant bi moom ñun sonn nañ ñun nit fu doon moom sonn nañ ci Dakar sonn nañ te bis bu ko defee lii gën nañoo sonn wax dëgg fa yàlla te duñ mënuñu fee nekk di dàqante ak force de l'ordre yi di dóorante ak ñoom bu administration bi jàppal bàyyil te wax nañ dëgg liñ bëgg mooy suñu jaame yaram di ñu aar te dem nañu ñu nit mën dañoo toog suñu néeg yi ndax dem nañ ba li ñu yoroon ndékki añ reer lépp doog koo dundal léegi man xalaat lu ma yóbbu dëkk ba de lu ma dundalee sama bopp laay xalaat kii lu mu dundalee bopp mu lay xalaat ah amatoo ko nooy def te as gor nga ah doo yalwaani doo sàcc alalu jàmbur président benn solution rek la mën a jël moom xam na que tey jii lii feebar bi metti nag naam waaye ki deux jours bu ñu defaloon lii ubbi yoon yi rek nit ñi dëkk Louga nañ ñibbi ñi dëkk Ndar nañ ñibbi ñi dëkk kawlak nañ ñibbi ñi dëkk Ziguinchor nañ ñibbi ñu tëj frontière yi nga xam si ne moo jóge ay mandat douane ay Gouloumbou ay ay Mourtani yooyu moom bu ñu ko tijji waaye képp ku dëkk ci région senegal rek muy Ndar cees Louga padoor maatam ubbil naa leen yéen ñi nekk Dakar ngeen génn ngeen dem ci seen mbokk yi. waaw ngeen dem toog fa bañ eh, yàlla def feebar bi jeex ak jàmm. ok yi yéen a ko gisandoo ginnaaw bu ñu doxantoo ci xàll yi nekk fii ci marché central bu Rufisque gis ngeen li fi jot a xew boutique yu bëri yoo xam ne du ñu lekk daanaka duñ koo tëj boutique yu jaay lekk rek ñoo tijji ak fii di marché jën marché yàpp ak marché légumes seetlu gi ñu def mooy lii di mesure barrière yi kilifa yi ŋànk lii di ministère de la santé digle ngir faggu ci jàngoro bii di coronavirus daanaka askan wi ba léegi jëfee ñu li ni mel jotul comme ni ngeen ko déggee ci biir reportage bi ni ka jaaykat yi waxee ñu def lii di confinement général ngir aar askan wi ci jàngoro bi di Covid 19 nga xam ne mi ngi tàmbalee di gën a law saay bu ñu xëyee di gis ay cas communautaire loolu nag di ab laaj bu ñuy samp di ci xaarandi ay réponse yu bawoo ci kilifa yi daa ngeen jëf.